waaw mouvement bi ñii ñoo ko créé mooy étudiants yi nga gis nii ñoom ñoo ko créé donc euh, bit bi wala li ko tax a jóg luy wala sabab bi du leneen lu dul euh, nekk ci cité bi gis ne cité bi mi ngi changé xar kanam bi mu ngi changé ñoom ñu jàpp ne lii nga xam ne mooy université bi autorités yi mooy ñi nga xam ne ñoom lañ ko dénk du ñoom kese ñoo ci war a liggéey ñoom itam dafa am wàll boo xam ne dañ ko ci war a dox donc wàll boobu moom moo sabab ñoom ñu former li nga xam ne mooy seen association bi tudd aar suñu cité mooy suñu yitte donc loolu liñ ci jublu du leneen lu dul waxtaan ak seeni naataango étudiant pour wax leen ni université bi ni mu tëddee nii wala xar kanam bi mu am nii wala ni mu mel fan yi lii suñu devoir mooy ku nekk mu dox ci wàllam pour université bi set pour université bi rafet mais aussi pour université bi am jàmm donc loolu moom moo tax ñoom ñu formé bii nga xam ne mooy organisation bi ñu bëri nag mbooloo mu takku bokk ci te ku nekk di ci dox wàllam Euh, ci turu directeur COUD ñu ngi leen di féliciter ñu ngi leen di encourager ñu ngi rafetlu loolu nga xam ne moom lañuy ñuy def. activité du leneen lu dul activité de sensibilisation ak activité tamit social parce que sensibilisation mooy euh, yee nit ñi si li nga xam ne moom moo war a nekk seen taxawaay moom mooy war a nekk seen jumtukaay euh, wala jumtukaay yi nga xam ne moom la ñu war a utiliser pour cité bi set mais aussi am jàmm loolu moom mooy seen activité mooy sensibilisation. mais également seet seen moromu étudiants yi nga xam ne dañu am ay jafe-jafe dañu am ay jafe-jafe jafe-jafe nag weesuwul mu war a jàngi am ay jafe pour jàngi mu war a euh, faju am ay jafe pour faju mu war a lekk am ay jafe-jafe pour lekk donc yooyu mooy yi nga xam ne ay jafe-jafe la yoo xam ne ñu ngi ciy euh, dox ay jéego pour ko koo xam ne daf ci am ay euh, jafe-jafe ñoom ñu jàpp ci donc loolu tamit bokk na ci ci li nga xam ne moom mooy seen activité mooy activité de sensibilisation mais aussi activité sociale donc loolu bokk na lu euh, doon na daal li gën a fës si seen i activité mën naa ne ñeenti fan si ginnaaw directeur bi daje na amicale yi ba waxtaan ceex ñoom ba ñoom ñi lëkkaloo nañu amicale yi ba ñu ngi ci waxtaan amuñu réeroo si activité yi nga xam ne ñun ñu ngi koy def si biir campus bi fii euh, pour firndeel ne ko sax pour firndeel na ko am na benn match de gala boo xam ne ñoom war nañ ko jouer ak amicale yi waaw ñun ñoo koy arbitré administration ñoo koy arbitré ñoom war nañu jouer ak amical bi pour wax ne ñoom ñi ngi lëkkaloo ñi ngi def li nga xam ne moom mooy seen warugar pour université bi am li nga xam ne mooy jàmm par rapport ak violence bi nga xam ne tudd nga ko léegi wax nga waxu violence donc loolu tamit bokk na si li nga xam ne seen activité la bokk mooy paix dans le campus euh, si si anam yëpp donc te paix boobu pour que mu am ñi nga xam ne ñooy amical yi nekk si campus am nekk ay représentants yu étudiants yi représentant légaux ñooñu tamit ñoo ñoo ngi ñoo ngi ci ak euh, aar suñu cité pour vraiment dox ci jéego yu ñu ci war a jox pour loolu mën a ne. dañoo constaté ni à chaque fois étudiants yi bu ñu leen defalee benn affaire bu rafet ba ñëpp teg ci seen bët ils ont tendance à trahir loolu lu ñu leen defal noonu à transgresser même les règles léegi nag bi fi màggat seen ñëwee ba léegi on a constaté que université dafa changé image dafa rafet ba macha allah ku fi dugg di nga am foofu di nga am foo toog noppaleeku di nga am sax mën a foo mën a defee say exercice lamp yi macha allah bu la guddi jotee fu waay taxaw dina seen sa morom wax dëgg fa yàlla rafet na lool léegi nag si loolu ñu ne ñu étudiant en tant que étudiant modèle yi nekk biir université nan lañ mën a def pour protéger pour préserver li nga xamante ni tey jii nii moom lañ moom muy université bi ak bien yi fi nekk yëpp si kaw loolu si lañ toog waxtaan ñu ne dañuy créer benn mouvement boo nga xamante ne nii mi ngi tudd aar sunu cité si kaw mouvement boobu étudiant boo ko wax dina ko apprécier de manière positive ñëw nañu lii kat dafa rafet dinañ si participer moo waral mbooloo bi ngeen gis suñu ginnaaw yëpp am na ñu bëri ñoo xam ne ñi ngi def tra si travaux dirigés yi ñi ngi si cours yi pratiquement si mouvement bi lañ bokk nañ bëri nañ goo xamante ne nii macha allah képp kuñ ko wax nga apprécier ko bokk si mouvement bi rôle mouvement bi nag mooy protéger et préserver les œuvres universitaires li nga xamante ni moo fi nekk si muy pavillon yi muy jardin yi muy pavage yi muy muy muy muy ba ci toilette yi nga xamante ni mi ngi si biir pavillon yi sax dañ ko war di entretenir di ko préserver duñ seetaan kenn ku nga xamante ni ñëw di ñu ko yàqal si kaw loolu nag benn sensibilisation la laaj dem jàkkaarloog suñu moroom étudiants yi waxtaan ak ñoom ne leen kat lii ñoo ko moom te buñ ko protégé suñu bopp lañ ko protéger buñ ko préserver suñu rakk lañ ko préserver parce que dañ fiy jógee suñu rakk ñoo fi ñëw wala suñuy doom ñoo fi ñëw loolu moo ne woon ñu teg loolu moo taxoon ñu jël idée bi tuddee ko mouvement aar suñu cité mooy suñu yitte ba tax ne étudiants yëpp ñu ngi koy coow mu nekk mouvement bu mag boo xamante ni day dox si sensibiliser suñu moroom étudiants yi loolu loolu moo ñu fi dajale woon tey en tant que membre du mouvement quoi cordinateur du mouvement. dem nañ si euh, président amical yi ak PCS yi waxtaan nañ si ak ñoom directeur COUD recevoir nañ waxtaan si ak ñoom ñoom sax ñun bu ñu demee ba ñemee def lii ñoo ñu permetre à ce que ñun ñu def suñu point de presse organiser suñu suñu suñu suñu suñu manifestation. parce que quoi qu'on puisse dire ñoom ñoo légitime ñoo légal ñoom la étudiants yi fal donc ñoom ñooy jiite. ñun li ñu mën a def mooy accompagner leen si liggéey boobu noonu jéem a jéem a créer benn module d' et de sensibilisation yoo xamante ni si biir étudiants lañ koy def ba tax na ñoom am nañ accord bu mat sëkk ak suñu diggante ak ñoom tey sax organiser nañ leen benn marché de gala ñoom ak administration COUD pour raffermir un peu les liens. mouvement Aar Sunu Cité dafa jóg si préserver ak protéger les œuvres sociales mais aussi dox si jàmm salaam. tey jii nii bu ñu gisee ne lii nii mën naa indi intifada ñun mouvement aar sunu cité dinañ si jóg dox si lu ñu si war a mën a jox que ça soit muy rôle médiateur que ça soit muy rôle leneen ak leneen mais lépp lu nga xamante ni mi ngi dugg ci université bi wala lépp lu nga xamante ni nar naa am ci université bi loo xamante ni dina dina indi intifada dinañ si taxaw ñun ñëpp dox ci liñ ci war a def dox ci jàmm tànki jàmm ak salaam ba suñu borom jàppale ñu si loolu daal nekkoon suñu rôle muy sensibiliser suñu moroom étudiants yi à ce que ñu xam ne lii ñoo ko moom di dox si jàmm ak salaam